yàlla ne man musuma jot ak Pawlish. alhamdulilah. billahi wallahi tallahi. mosuñoo mm-hmm. am problème. Mm-hmm. waaye lis ma ngi ko doon wax ci benn interview xam nga mbër dinay daanu sa ñu naan dafa weetoo ak nangam lis daf ma mbot xattar bi ma yëgati ba si kaw tëral jaar suma kaw de. kan ku def waa ji woo ngeen. ma ma wax journaliste ma ne ko ndaanaan daanu na parce que man damay bëgg di nangu dëgg. Mm-hmm shaddaat dafa laaj yonantu lan mooy rëy ndax hmm. mooy takk or mu ne ko déedéet hmm. mooy nangu dëgg hmm. mais man su ma jotee ak nit doone ma ne mu ni parce que lu wax munta faj jëfa koy faj te kii bokk ñu yoon bay jotee dëgg la tubarkal la duñu morom ci at bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu yoon buñ jaar mën nañoo dund ba àdduna jeex problème du musa mais li xew xaw na am na nam amé wallahi falilahi alhamdu you know am problème. kontan nañu mais kontan na mais am naa mbégte di ñew man nak sa ibnu national la lay tagal rek ñu tàggatoo ko gaay yi. xolal ah. waaye xoolal. mom dana ko ci tay mom bayna Ousmane Sonko. ndeysaan oh, oh, oh. dimbale waaye. <laughs> bàyyi bayna Sonko. alhamdulilah rabbil alamin. do dootul degati ba wax. dimbale ma ngir yalla ngir jëmmé rasulilah bu waxati kenn. do xamni ne day. non non <laughs> dimbali ma rek. bes bo déggé ma wax ci Sonko lu ñaaw. Uh-huh. duma talibé taalibi tidiane الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بلو كو دارا جارال تي افيري اوري موم نيما كو واخا گمي لا كو وا مي نو مي دكو